daa leen wax di yàgg naa leen ko wax di ngeen am da nga am taw taw ko may xaas la am ñoom ñu ngi fekk nekk ci liggéey xas dégg ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér wér wér yoo xam ne taw bi ñëpp war nañ xaas xaas ngeen am waxuma taw feex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen xaas ngeen am. noonu ba tey lay continuer ci saar mu ne yow sunu borom. maa ngi lay dellu ñaanati wa waddiha yàlla na nga leeralal lee ñeel ma siirata nabi jaar-jaaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam wal tuxini te ma dundalee biha jaar-jaar yooyu nga leeralal ma bi hurmati duha ci barkeb sóoratu duha yàlla nag ma leeralal yonent bi fi mu jaar mboolem xasawaat yim xare ko loolu mooy siirata nabi kii rek ba mu ak waxtu nguneem ci saayir ba yàlla di ko yónni dégg nga juróom benn fukki at ak ñett yi mu fi am yépp li fi yónnent bi sallallahu alayhi wa dundam góog dundam gépp dafa laq ay keman sëñ Tuubaa nee na yàlla dama bëgg nga lal ma ko dund gi def nañ ko lu ne waaye li tax sëñ bi ñaan li rek mooy ma wa daaka rabbuka wa maa ndax léeg-léeg nit yàlla di ko teg fitna mu defee ne yàlla da koo fàtte wala yàlla da koo bañ te déedéet wallahi laasim yàlla looloon ak nattoon la rek da koy nattu rek waaye fekk bañit ko moo tax saar yi mi ngi tàmbalee ci wad duha yàlla dafay gën ci njëlbeenug bëccëg gi ak duha mooy njëlbeenug bëccëg waxoon naa la buñ jël njëlbeenug bëccëg mooy bu jant génnee rek lépp ba jant di soo yàlla gëñ na daal wad duha mooy xasmu bi awli nahaari aw kullihi ñi ne daal njëlbeenu bëgg bëccëg bëccëg gi rek la ci namm nga xamee ne mooy lu mel ni yoor-yoor ak waaye nag jublu ci bëccëg ga am ñu ne déedéet bu ne Wadduha maay gën ci yor-yor rek loolu lam ca nam rek mooy lépp rek surne bi lépp ci la gëj ci la gëñ mooy ba jant bi génne ba ba muy so. walay li isaa sa jaa sun borom nee na maa ngi gën ci guddi gi soo demee nag ba dal nit ñi da tek dugg ci seen biir néegi yi tëdd seen kër yi ngir guddi jot na dal nag nga xam ne kenn dootul yëngatu kenn dootul yëngatu moo tax ma ne walay li maay gën ci guddi gi issa sa jaa bu demee ba dal nag nga xam ne nag lëndëm na kërës nit ñëpp kenn ku nekk dugg sa néeg dégg nga su ko defee nag sunu borom ne maa waddaxaka rabbuka yow yonent bi bañu ma la de wax yu gi ma gëj a indi bañu ma la de nekku na dama laa bañ de fekk yonentu sallallahu alayhi wasallam yàlla dafa daan yomb indi ci moom wax yu am na bis boo xam ne nag toog na yàlla indul ci moom wax yu bis ba ca toog bam da ñeen fukki bis jibril indul ci moom wax yu mu ne man moom sama xarit moom man ndax moom daf ma bayem wala ya caajul sin tuuti rek su ko defee nag jibril indi aaya ji na ko wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma bayna aydina wa ma xalfana wa ma bayna salika wa ma kana rabbuka nasiyan yonent bi mujj gi wax yu dafa neex ci moom lool ba mujj gi te wax nañ ne diir boobu daf daan yéeg ci kaw doja ngir di bëgg a daanu ngir jibi lim gi lim gëj a indi wax yu yonent bi salaasam di ko métti lool lool mu métti ko lool ci la ko jibril dikkal nag ma ko wallaay fàttaluñ fàttewuñ la sa borom itam fàttuwut la waaye ñun boo gisee indi luñ la wax yu yàlla daf ñuy joxul wax yu waaye sa borom moom fàttuwut la wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma bayna aydina wa ma xalfana wa ma bayna sarika wa ma kaana rabbuka nasiyan moo tax suñu borom na ko ma wadaaka rabbuka wa ma xalaa yow yonent la comme ni nga xamee ne musrikoon yi noonu la di wax di la wax wax yu ñaaw di la xas ndax gisatoo wax yu ndax bi mu gisatul wax yu musrikoon yi kat dañ ko commencé xas di ko ñaaw lu ne ñu wax ko rek yalla na ko sa borom bàyyiwut la waaye bañut la te wala laa xëytu xayrun laka mina luulaa lii ñëw moo dàq fuuf àdduna lu fi nekk lépp day jeex alaaxira nag la fa nekk ci ay xéwal du jeex mukk day sax faw àdduna nag dara du fi sax kon nag na nga xamee ne kon dañ la koo dincal ngir ëllëg waaye nag àdduna moom su fekkoon ne kër la goo xamee ne dara da fi nekk konoon lépp lañ lay jox waaye nag bañ xamee ne dara nekkul fi te lépp da fiy bayee ko te day jeex su ko defee nag wala laa xaytu xayrun laka mina luulaa lii ñëw moo dàq foofu te loolu bu ñëwee wala sawfa yu'tika rabbuka fatardaa sa borom dañ la jox ci yool yu bari jox ko saw xeet ba nga gërëm feeg sama xeet dégg nga ñëpp dugguñ aljana gërëmaguma alhamdulilah rabbil alamin moo tax mu fi sóoroon yu bëri dañuy wax ne bokk na ci ay yi gën a dal xel muy wala safu yutika rabbuka fatarda a qul yaa ibaadi allasina asrafu ala anfusihim ñaari ay yi ay gënul leen di dal xel ci alquran qul yaa ibaadi mooy jàngale ne nit lum tilim tilim ci bàkkaar soo tuubee yàlla jéggal la yàlla loo tilim tilim boo tuubee jéggalu mu jéggal la waaye ay ji itam sunu borom moo wax yonent bi yonent bi waxut ko ko de yàlla moo ne ko wala sawfa kada ba ko fa tardaa te fa tardaa moom yonent bi def na ne du bàyyi kenn ci aw xeetam ku ñu naan ci la bokk muy dem safara loolu wax yàlla na nga dugal kii aljana moo tax nag sëriñ bi nee ne yow sunu borom wa waddiha yàlla na nga leeralal li ñeel ma siirata nabi jaar jaar yonent bi wal tuxi nii yàlla na ma dundal bi ca moom bi xurmati duha ci barkeb saar yu ñuy tuddee duha yàlla dafa gën ci yor-yor gi su ko defee jaar la muy tegtale yow miy déglu jaar-jaar ba mooy da nga ci xalamee sa xol dalee ci sa xol dëggoo ci moo tax sëñ bi waxee suñu borom mu leeralal ko jaar-jaar yonent bi salaat alayhi ak li ci de métti yëpp su ko defee nag mu ne nang ma dundal su ko defee nag dundal gi mooy fa yonent bi tegoon tànkam mu teg fa tànkam kon loolu rek la ci nam wasarax yàlla na nga xubbi fu aadi sama xol wal tuasim ta nga màggal fat yi sama xubbeeku fii naa fi mi ci gën kaa jëriñi xam-xam naa fi xel mi ci biit gën kaa jëriñi xam-xam nang ma ko defal bi xaqi sarxi ci barkeb suratu sarxi yàlla sama xol nanga ko leeral sóob ci leerug lislaam wasran fu aadi mooy xol boo xam ne yàlla da ko hubbi sóob ci leerug lislaam waaye yàlla nanga nga màggal sama fattu fattu gi ma defal hubbi ma yàlla na nga dollee rëyal fattu gi waaye nag ci ni nga koy defee anam bi mooy xam-xam yi ci gën a jëriñe ci nga may hubbi xam-xam yi gën a jëriñe daal ci ngay def ma am ci ak hubbeeku ci saayir waaye am ci ak hubbeeku ci baatin suratu alam nasrah loolu lay firi rek alam nasrah mooy xat wasax naa bi nuuril islam baadal xayrati wa dayqi yónent suñ borom nee na ko ndax xubbi yu ñu sa dënn mooy xubbi nañ sa dënn yaatal ko dugal ci leerug lislaam gannaaw ba nga nekke ci ngëlmande ak xat ak xat-xat bala yàlla yónnee gud yaa ngi ci ngëlmande ak xat-xat su ko defee nag ñu bi sa dënn yaatal ko suuf ci leerug lislaam moo tax yàlla na ko alam nasrah laka sadraka ndax xubbi yu ñu sa dënn ñaareel bi mooy woo dax woo dax naa an ko wis rek li la njëkk mooy ubbi sa dënn yaatal ko suub ci leerug lislaam bi mooy wa dax naa xan ka wis reka bàkkaar yi gàlloon ci yow ñu sippil la ko waaye naka noonu sa bàkkaaru xeet yi naka noonu itam yónnente ko ne xam ne amut bàkkaar waaye su ko yàlla waxee loolu bàkkaaru xeetam la ci namu moo tax mu ne wa dax naa ñi sippi xan ka wulis la wis reka sa bàkkaar mooy yan bàkkaar mu ne allati an xada saxraka bàkkaar yi nga xamee ne dégg nga sonaloon na la ba nga xamee ne tuutu ko noonu sax diisaay gaay waral tuutu ko noonu mu damm sa gannaaw borom xam-xam boo gisee nit ki mu am bàkkaar rek gannaawam day diis gann bu tëddee day diis buy dox day diis ni nga xamee ne mbaam noonu lay sëfee ay tiire nit ki bu bëree bàkkaar bàkkaar yi noonu lay diisee ci gannaawam kon allati anqada sanraka bàkkaar yi nga xam ne moo diisal sa gannaaw yàlla defalaa na ko rafanaa laka sikraka ñun yàlla ñoo yëkkati sa tur yonent bi su ko defee lëkkale ko aw sunu tur sooy nodd wax sooy liqaam wax ko ak lu dul nodd ak liqaam ku ne xam ne ne liqaam dana am tur yonent bi dana am tur yàlla julli goy julli faaw da nga ci tudd yonent bi ca taaye yëpp defe naa ne dëgg dëgg dëgg kuñ ne loolu mooy siw buñ siw siiw moom loolu mooy siw fajar nga dégg ñu ne Muhammadu Rasulullahi allahu akbar tusubaar nga dégg ko takusaan timis gee fuñ tuddee yàlla tudd yonent bi dëgg dëgg bokk yi buñ ne siiw ca pie yàlla ya siiw ci kaw suuf fii ah dëgg dëgg ko yonent yàlla maama rek ko def moo tax nag sëriñ bi fatu googu nga xam ne moom la suñu borom defaloon yonent bi sëriñ bi moom it ñaan yàlla mu defal ko ko ci xam yi gën a jëriñe foo aadi sama xol suub ci leerug lislaam wal toansim yàlla na nga màggal fat yi sama xubbeeku fii naafiyal elmi ci biit gën kaa jëriñu xam-xam beeqi sari ci barkeb surtu sari sarxi li muy firi rek mooy xubbi gi sun borom xubbi dënn bi yonent bi suub ci leerug lislaam loolu rek lay firi sëñ bi itam loolu rek la ñaan kon loolu munaasaba la bi suuratu tiin yow sun borom maa ngi lay ñaan ci barkeb suuratu tiin ik fi nii yàlla na ma fegal hedaaya samay noon yépp wasrif yàlla na nga wëlbati xulóobuum seen xol ya ilaa si waa yaa ñi daw jëm ci feneen fu bokkut ak yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb suuratu tiin samay noon yëpp ci am na leen wëlbati ñi daw jëm ci fudun man kooku bu boppam la waaye nag seen xoolee ci boppam ndax nit su fekkee dégg nga xolam yow nekkatoo ca amatul ci yow soxla kon noonu sëriñ bi su fekkee seen xol bañ sëriñ bi nekkatut fa dégg nga feneen la ñuy dem waaye du jëm ci sëriñ bi moo taxoon bi suuratu tiin maa ngi lay ñaan ci barke suuratu tiin ik fii nii yàlla fegal ma xedaaye samay noon waaye bul yem rek ci feg leen waaye wasrif na nga wëlbati mooy soppi rek xulóobum seen xol ya su ko defee ilaa si waaye ñi daw jëm ci feneen fu bokkut ak man dégg nga dégg kon xol la yàlla di soppi yàlla bu la soppalee say xol yi noonu sa noonu donte ñi bokk yow benn kër sax jubluwuñ la bu ngeen bokkoon benn néeg bu ngeen di fanaan sax jubluwuñ la waaye nag lu ngeen sëree sëree te fekk nag sa sa xol yi ñu ngi la ëmbal ak kañaan ak lu luñ la sëri sëri du tee ñu ngi la jublu ñu ngi la jege waaye nag su fekkee nag di fanaan te fekk ñii da nga leen tuddee say noonu te fekk seen xol yàlla jalar bi na ko tàggat ko ñii xalaat keneen ku dul yow ci bëgg ko lor su ko defee kooku moom mooy yàlla sëril na ko rek sëril na la seen xol ya kon loolu lañ ciy jànge mooy nit xol la su fekkee nit ki soo bokkutee moom néeg te fekk yàlla wëlbalti na la xolam manut laa bañ lu ngeen bokk bokk nekk nga tuddee ko noon kooku duur soog noon dégg nga kooku suy noonee keneen lay noonee meedu yow. yàlla gëñ na ci wa tiini wa saytuuni wa toori siniina wa asal baladi al amini laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina ila allasina amanu wa amilu salihati fa lumu ajrun xayru mamnunin fama yukasibuka ba'du bi diina alaysa allahu bi akamil akimina sun borom gëñ na ci li nga xamee ne moo di tiin ak saytoon ñi ne mooy aqsamullahu bi tiini wa makaana nabatuhu mooy tiin ñi ne am ñu mooy benn barab la boo xam ne ma nga ca siri salam ci baytil muqaddas yàlla gëñ na ci saytoon wa makaanu nabaatoo fil ardi Palestine ñi ne dafa am gàncax goo xam ne dafay sax ñi di ko wax saytoon mu nekk sa suuf ci Palestine sax ca baytil muqaddas ca Quds yu ñi ne foofu la sax yàlla gëñ na ca ay barab la daal yoo xam ne ña nga ca baytil muqaddas yàlla daf ca gëñ yàlla gëñ na wa tóori si nii na muy doj wa nga xam ne yonent yàlla Moussa ci la doon wax ak boromam wa haasal baladil amin mooy dëkk bii di Makka mooy dëkk bi ñu wóolu kon yàlla gëñ na ci wa tiini gëñ na ci saytoon gëñ na ci wa tóori si nii na waaye gëñ na ci waxaasal baladil amini la muy gëñ yépp leen rek la laqad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiimin ñun yàlla daal ca dëgg-dëgg sàkk nañ doomu aadama ci melokaan wu gën a rafet wu gën a jekk wu gën a yemoo ci lañ ko sàkk su ma radat naa wa asfala saafilina gannaaw si nag ñi delloo ko mu jëm ci màggat dégg nga nga xamee ne soo ko gisee sax dootoo ko xàmmee da nga gis way jur woo xam ne wu góor lam daan defal doomam di ko yëkkati di ko bàmbaane di ko sang doom ji dana dem ba yegg ak moom foofu loolu mooy suma radanaaw asfala saafilina kon gis nga ko dégg nga suma radanaaw asfala saafilina ila lasina amanu wa amilu salihati fa lumu ajrun xayru mamnun waaye fekk suma radanaaw asfala saafilina la ci yàlla namu mooy ña nga xamee ne tabaarakallahu dañuy jeexal seen dund gépp ci mooy yàlla ñooñu yàlla dañ leen delloo su ko defee ñi dem nag ba màggat a màggat su ko defee nag mu delloo leen ñi tàbbi safara suma radanaaw ganaaw si nag ñi delloo leen asfala saafilina ñi dem ba gën kaa suufe ci way suufe ña donte lañ doon nekk xale-xale seen waxambaane seen ndaw yépp ñi jaay ko ci mooy yàlla yàlla nee na ma bàyyi leen bañ màggat ma delloo leen ca anam ba gën a suufee te mooy màggat waaye itam su ko defee nag asfala saafi nee na lañ ca namu mooy anaara in lam yutin in in lam yutin ala mooy yàlla nee na dama koy delloo fa gën a suufe ca safara su fekkee topour yàlla ñu ne ko yàlla ndax ñëpp la mu ne illa lazina amanu wa amilu salaat fa lu maa junun xëy ñooñu moom danaa leen fay yool goo xam ne kooku du dog mukk te mooy aljana su ko defee nag xayra maqtoon wala manqusin suñ duggee aljana yool yama leen fay fay du dog te du wàññeeku. famaa yiko ko si bu ko baax du bi diin alaysa law bi ma yow weddikatub yàlla bi ana lan moo la weddiloo yàlla gannaaw layu leer nañ ñi ma wax ci saar ana lan moo la weddiloo bisu pay ba alaysa law bi akmilakimina ndax dangaa defee ne yàlla moom du xatti mukk ñi nga xam ne ñooy xattekat yi nekk ci àdduna moo xam ñu mandu ñi ak ñu mandul ñi ndax da ngaa def ne yàlla du leen atte ah kay balaa rek moo ci topp. moo tax sëriñ bi ne yow sunu borom maa ngi leen ci barkeeb suuratu tiini ik fii nii nag ma fegal hidaaya samay noon wasrif yàlla na nga wëlbati xulóobuum seen xol ya ilaa siwaa yaa ñi daw jëm ci furut man tiin li mu fir rek gàncax la gu nekk ci suuf ci Palestine sa ca baytil maqadas bi suratul alaq yow sunu borom maa ngi leen ñaan ci barkeeb suratul alaq ab na nga may li ñeel ma as suroox mooy ma sumb fii xayri ma gën ci la nga xamee ne suri a yoonalees nga fii ci moom biiru jox dégg nga ànd koog dellu ga biiru jox ca dellu ga yow sunu borom maa ngi lay ñaan ci barkeb suratul alaq nag ma may fii ma nekk ci biir géej gi ci biir tukki bi nag ma may dégg nga ma sumb ngën ci loo xam ne yaa ko yoonalal sa bopp te moo di sariatul muhammadiya nag ma may ma sumb ci loo xam ne yaa ko yoonalal sa bopp ba keroog may dellu ñibbi Sénégal la ca namu moo taxoon bi suratul alaq maa ngi lay ñaan na nga may lee ñeel man asruhum sumbu sumb boo ko déggee mooy ko xam ne dafa tàmbali dara ci biir sariatul muhammadiya dégg nga warlul ko boppam di ko def moo tax mu ne ko xam na nga may lii ñal ma asruhum sumbu fii xayri ma ci gën ci la nga xamee ne suriha yoona lees nga fii ci moom biiru jon ca dellu ga bu fii ma nekk ci géej ga ak su may dellu yëpp nanga may ma sumb loo xam ne daal mooy li gën ci li nga yoonal yow yàlla dégg nga ma defee ko nag ca dellu ga te mooy dellu ga mooy mooy bu ñibbi ca tukki ba. al tuddee nañ ko ko ngir baat bi ñëw na ci biit ala qit'atin dammin qalisin alaxin boo ko déggee mooy lumpu deret ku ne xam na ko nit ci la bay ko gannaaw ba mu nekkee toqatal mën yu gannaaw ba mu nekkee lumpu deret nekk aw suux yàlla wodd ko yax fa kasaw na la xisaama lax man suma an sox naaw doomu aadama fi ku yàlla jaarale yàlla rek ko xam loolu nag moo tudd alax lumpu deret doomu aadama bala moo nekk nit dëgg-dëgg fii la jaar ci barabu xew bi yàlla wax yonent bi na ko iqra bismi rabbika yow yonent bi jàngal li ñuy wax yu jëmee ci yow su ko defee nag na nga tàmbalee sa borom mi sàkk mboolem bindee fi iqra bismi rabbika allasi yalla mi nga xam ne moo bind doomu aadama bàyyi ko ci lumpu deret kenn ku nekk deret goon goo xam ne gu way nga dam min dammin mutajamadatin kenn ku nekk bada an kaanat nutfatun gannaaw ba nga nekk toqantal ma ni yaa ngi jaar ci deret yoo xam ne ju way la kon loolu mooy àllax moo tax nag ñi tuddee ko jëmmi saar yi ne moo di suratul alaq mooy lump deret nit ko su nekkee toqatal ma nii dafay jaar ci deret bala moo nekk dëgg-dëgg nit moo tax mu ne nag bi suratul alaq may la ñaan ci barke bi suratul alaq am na nga may lii ñeel ma soro ma sumb fii xayri ma ci biit gën ci la nga xam ne suri ay yoon les nga fii ci moom biiru jox ca dellu ko daal may ma su ma delloo Sénégal mm, li nga xam ne yaa ko yoonal tabaarakallahu nag ma may nag ma sumb ko su ko defee nag ndax mooy li gën ci li nga yoonal su ko defee nag ma sumba ca commencé ko nag di ko def waaye loolu na am nag suma ma delloo Sénégal wajaal yàlla na nga def xayaati sama dund fii nu muyul ajri mu nekk ci dolleeku payoor ka laylatil xadri ba mel ni ki guddig laylatul xadar beexil xadri ci barkeb suratul xadri yàlla maa ngi leen sama dund gépp yàlla na ko def moo xam guddi yi ak bëccëg yi at yeeg weer yi li ma am ci adduna daal sama dund gépp waxtu wu ne bis bu ne sama yool nay gën di dolleeku ba mel ni guddig laylatul xadar nim sutee yeneen guddi yëpp sama dund itam bis bu ne bëccëg gune ne na gàccal yeneen bëccëg ya waaye itam guddi gune na gàccal yeneen guddi ya dund ak sëñ Tuubaa lépp guddi gi laylatul qadar moo ko xol boppam ci yeneen xasida yi mu ne yàlla nga def nag sama dund su ko defee nag yool yi di dolleeku ndax kenn ku nekk nga bëgg nga su ko defee nag sa dund gépp nekk aw yool ndax bu yowmal xiyaamee yool yooyu yool yool yëpp ñeel la ngir nga mën a tàbbi aljana sëñ bi ne yàlla nga def sama dund su ko defee yool yi di dolleeku waxtu ne ba mel ni guddi gi laylatul ay yoolam ni mu sutee yeneen guddi donte am nañ yool yàlla maa ngi lay ñaan lool ci barkeeb saar wi nga xamee ne moom la ñuy tuddee suratul xadri tudee nañ ko suratul xadri ndax mooy guddik dogal yàlla wax na ansal ansalnaahu fii laylatil xadri ñun yàlla ñoo wàccee alquran ji wàcceeg ba mbëstal mu bàyyi ko ci asamaan dégg nga ca lahul mahfuz ca nañ ko xamee jëm ci asamaan si nga xam ne moo ñu tiim boo degee ina ansal ansalnaahu mooy wàcceek ba mbëstal alquran ñi ngi ko jëlee lahul mahfuz toxal ko indi ko ci benn néeg bu ñuy wax baytil ansa fi sama i ci asamaan si tiim ñu ci lañ ko indi woon su ko defee nag jibril foofu la koy jëlee dégg nga xew-xew bu am rek ci àdduna yàlla jox jibril na ko yéetal gaaya yéetal Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàngal ko ko su ñëwee jàngal ko yonent bu mokkal ko yonent bi jàngal ko saxaabi yi moo tax suñu borom na ko ñu naan sanaa fi leeti xadri ñun yàlla ñu wàcc alquran yépp jëlee ko ci laxul manfoos indi ko ci asamaan si tiim ñu dégg nga waaye biñ koy wàcce ci yonent bi moom par ndànk par ndànk diirub ñaar fukki at ak ñett ci lañ ko wàcce su ko defee nag ana lan moo la xamal yow yonent bi lan moo nekk ci guddi gi ci ay yiw ak barke mu ne ko leleetul xadri yàlla na ko guddi gi de guddi la gu màgg ci aw yiw moo gën sax junne weer ci képp koo xam ne taxawee na guddi gi ànd ak gëm yàlla ak sàkku tiyaaba na nga xam ne dundal gi nga koy dundal rek moo gën it moo gën fuuf ku dundal maanaam junne weer di ci jaamu yàlla moo xam ngay wor bëccëg ya di naafile guddi ya yéen xeetu yonent bi jox naa leen benn guddi goo xam ne ci weeru koor lay am fukki fan yu mujj ci lu borom xam yu ëpp daal di dëppoo doon te wuutee am na ca su ko defee guddi googu moo tax nag ñi di ko dàkk ci fukki fan yu mujj ya moo xam ñi nga gis ñëpp moo xam tarixa yi ak ñi mu tarixa sax dañ ko cee dakk boo defee nag yàlla jox ñu guddi googu ne guddi googu seen ko màggalee te dajeeg moom dajeeg payoor ko moo gën junne weer kon moo tax nag sëñ bi munaasaba boobu moo tax nga gis mu ñaan na wàjjal yàlla na nga def xayaati sama dund fii nu muy ajri ci dolleekuk yool ka laylatil qadri ba mel ni guddig leetu qadar beexil qadri ci barkeb suratul qadri al qadar mooy firi guddig dogal gi li tax ñu tuddee ko ko mooy ci la yàlla di dogal mboolem mbir yi ñi war a ñàkk ci at mi ñi war a am ñi war a am doom dégg yu mel noonu yëpp ñi war a feebar ñi war a génn aduna dogal yooyu ci guddi la koy yàlla di def programme waxut yàlla na ko mat yow yàlla nafsi sama bakkan lay na muy aji nooy nepp ilal xayraat di daw jëm ci yiw ya bilaa takalufin ci lul benn coono bi aqil bay na ci barkeb suuratul bay na yàlla yàlla na nga sama bakkan avant loolu na ko tàggat ndax bakkan bu nooyut mantu naafale mantu matal farata yi mantu woor mantu añ màkka mbaa ak tayal dana ko ci gaar kon bakkan bu nooy mooy bakkan boo xamee ne dafay màmm rek jëm ci yiwi te yàlla nee na saabiqoo dégg nga ila maxfirati min rabbikum jàng nañ ko ci alquran innum kaana wisaaruna fil xayraati fafiroo ilallah yooyu yëpp day day tekkale ne lu baax rek moo mat a jiiroo moo mat daw jëm ca ci waxtu wu ne moo ñi tëddee di nelaw moo xam ba ñi yeewoo lu baax rek mat a jiiroo lu baax rek mat a sax moo tax mu ne yàlla na nga womat sama bakkan nag waaye bala nga ko womat na nga ko tàggat ba nooy nepp su ko defee nag nga xam ne kenn du ko waxal yiw yi day màmm rek jëm ci yiw yi di ko def ci saay rek baatin waaye nag bakkan bi soo ko womatee mu jëm ci yiw yi bu mu am benn coona bu ko ci benn gàllankoor fekk benn coono benn tiis benn méttit benn jafe-jafe benn musiba maanaam bakkan bi bu mu ko am bakkan bi daan na ko fekkee muy def gi muy def lu baax coono yi lu muy bëri bëri na ko attan kon waxut yàlla na ko mat nafsi sama bakkan bi lay na muy aji nooy nepp nag ilal xayraat nga jëmee ko ci yiw yi mooy yu baax yi bilaa takalufin te ta ko defee ci lu benn coono bu mu ci am maa ngi ko ñaan beqil bayna ci barkeb saar yi nga xamee ne mooy sóoratul bayna tuddee nañ ko sóoratul bayna bayna li muy firi rek mooy al alaamatu allati waidoo biha fil kutubi saabiqa ku ne xam ne ne sun borom dafa am tëkku yum tëkku wala ay dëxal yum dëxal te waxoon ko ci téere fi jiitoon lu mel ni tawraat wala sabóor wala injiil am na tëkku yum tëkkoon ñi weddi yonent bi sallallahu alayhi wala ñuy jengee aw turam ñoo ñëpp am na lum leen ca tëkkoon waaye am na lim dëxal ba tey ñi nga xamee ne bu yonent bi yonent bi nga xam ne moo mujj ci yonent yi su ñëwee su ngeen ko gëmee am na lu leen yàlla dëxal ba tey ñoom nag yonent bi nga xam ne ñoom yahuud yi ak nasaraan yi ak musrikiin yi yonent bi nga xam ne moom la yàlla doon joxe information ci tiir yu fi jiitoon ne su ñëwee kat yéen yahood yeeg nasaraan yi ak musrik yi neen ko gëm ñoom nag dañoo wuute woon su ko defee nag yonent bi ñëw war leen di bennale ñi nekk benn mbooloo muy xàccee di dóoree ndoor ndeke bi yonent bi ñëwee nag ñoom dañ cee gën a jëlee ak wuute moo tax nga dégg suñu borom lam yakuni lazina kafaru min ahlil kitaab wal musrikiina munfakiina hattaa taatiyahumul bayna mu ne ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla te bokk ci ñooñ ahlul kitaab mooy ñooñ téere ta te mooy yéexoot ak nasaraan ak bokaalekati yàlla yi mu ñoom kat bàyyiwuñ mukk seen weddi yàlla gi seen weddi yàlla gi daal dañ caa sax bàyyiwuñ ko mukk ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil leen mandarga yu leer ne moom mooy ab yonentub yàlla moom mu waroon ñoo benn leen ñi nekk benn waaye nag ñi gën a nuuru gën a wuutee yonent bopp mooy kan mu ne rasulun min la yatloo suufan mutaharatan ndaw la lu tukkee ci yàlla layla wu leer nañ wu tukkee ci yàlla ne yàlla moo ko yónni su yàlla mu yónni ko mu leen di jàngal téere boo xam ne bu ñu laabal la te mooy alquran kenn warut ko lal lu ñi nga xamee ne dañoo seet wicci fiya kutubun xayma téere la boo xam ne kat xibaar yu dëgg moo ci nekk ak xàtt yu mandu dégg nga nga xamee ne dana orienté nit ñi di leen jëmee ci lu yéwénal seeni mbir ak seeni jëf ak seeni wax waaye dana leen yóbbu ci ak njub gindi leen kon béy na soo ko déggee rek mooy mandarga moo xamee ne mu leer la te mooy ci turu yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk ndax yonent bi waroon ñëw benn la leen ñi nekk benn ñoom yéexoot yi ak nasaraan yi ak bokkalekat yàlla yi bi yonent bi ñëwee nag ci lañ gën a bennoo commencé nag di noonante de nga yooyu yëpp tabaarakallaahu loolu mooy ñàkk tawfiq rek boo déggee mooy ñàkk tawfiq ku war a ñëw yàlla ne ne kii moo war a ñëw nekk la leen benn yen ba mu ñëwee ngeen weddi ko nag nekk ci seen kiife gi saxta te bi mu ñëwee am ngeen lay wu leer naññ ne xam ngeen ni kii yàllaa ko yónni ci yàlla bee ko dangeen ko waroon a gëm waaye ngeen daldi weddi ko ba noppi yéen ci seen biir ngeen wuutee du ngeen nekk benn wa najini yàlla na nga musal min jumlatil ahwaali ci mboolem tiitaange yi dunyaa fii ci aduna wa uxra ak alaxira rabbi yow sama borom bi silsaali ci barkeb suuratu sil silsaali yow sun borom yàlla na nga musal ci mboolem tiitaange aduna yi mbaayu alaxira lépp lu ñuy tiit ci aduna mba ñi di ko tiit ci alaxira rek yow sun borom maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ci barkeb sil silsaal xam nga dafa def munaasaba silsaal rëng-rëng lay firi mooy njëlbeenu yàlla wax wa ba'du a'uuzu billahi bi shaytaani rajiim yàlla ne isaa sulsilati lardu silsaalaha sulsilati mooy rujjat wa xarukat bi quwatin bu àdduna di tukki suuf si day gërgër ak yëngatu yëngatu bu am doole bu tar dégg nga mel ni aw dën rek dal di yëngatu yëngatu wu tar su ko defee nag wa axrajati lardu asqaalaha su ko defee nag suuf yàlla dénk na ko ay néew ak xeeti or yi xeeti ndàmb yi ak néew yi yàlla da koo dénk waaye lum yàgg-yàgg moom suuf la ko yàlla dénk dana ko ko delloo te bu ko yàlla delloo buñ cee bu ko bu ko yàlla di laaj suuf dafa yëngatu rek daal di diq yëpp lim denc ci biiram yëpp ci ay kunos ay ndambu minal mawtaa ci ay néew yëpp lu muy diis diis moom suuf yëpp lay dal di xiqi dal di koy génne ndax borom bi di kat moo ko laaj na ko ana lu mu la dénkoon wa axrajati laadu asqaalaha li nekkoon ci biiram diis yëpp tabaarakallaahu xeer yeeg jamaadaat yeeg wurus yeeg or yeeg yëpp da koy dal di xiqi su ko defee waqaala al insaanu maa lahaa su ko defee nag doomu aadama yi tiit ne waaw suuf moom lan moo ko def loolu yi moom yorut lamañ yorut xel waaw waaw moom moom lan moo ko tax a def lii mu def muy yëngatu baam doole bi li ko yàlla dénkoon ci xeeti néew ak ndam yëpp mu génn ko yow ma isin tuhadisu axbaaraha sun borom ne suuf bis la boo xamee ne buñ ci tolle dana xibaar mboolem lu waay jëf ci kawam kon lu waay di jëf ci suuf rek yàlla ne suuf dana ko wax. kon de jëf lu baax de mat naa jëf de lu baax waxuma yow say cër waaye suuf mi nga xam ne bis bu ne yaa ngi dox ci kawam di war ci kawam di tëdd ci kawam te du la moo sa sàppi la nga def ci kawam yépp bu yow yowmal xiyaamee dana ko seede bu yàlla bu bu ko yàlla di laaj lam ko dénkoon muy néew yeeg xeeti kunoos yeeg yépp suuf dana wax ne diw kat li la doon def sama kaw kon yow ma isin waxtu la woo xamee ne buñ ca tollee isaa sulsilati boobu mu wax to hadisu axbaara suuf dana nettali lépp luñ mos a jëf dégg nga ci kawam ñu ne waaw suuf yow moom dangaa yoroon làmmañ wala xelam mu ne bi an rabaka aw xeelaa ah sa borom mi nga xam ne moo sàkk suuf kat moo ko digal na ko nettali lu la waaye mën a def ci suuf rek nettali ko su ko defee suuf du ko sañ bañ su ko defee nag noonu la ko saar yu toppee noonu la ko saar yu toppee waaye suul si la daal mooy tekk rëng-rëngi foo ko déggee moom métti la woo xamee ne yàlla na ci musal te musal leen ci yàlla buñ ko fekkee wana ji ni yàlla na nga musal min jumlatil axwaali ci mboolem tiitaange wa uxra ak alaxira rabbi yow sama borom bi silsaali ci barkeb sulsaali bi silsaali ci barkeb silsaal silsaal mooy rëng-rëngi suuf dafay rëng-rëng rëng-rëngi bu am doole bi ëtt na di tukki rëng-rëngi boobu nag moo tax ñu ko mu delluwaat yow sunu borom wa baarik yàlla na nga barkeelal yee ñal ma fil baniina samay biir doom yu góor yi wal banaat ak yu jigéen yi awlaha way njëkk seen di sóoratin ci barkeb saar wi nga xam ne wal aadiyaat mooy aadiyaat yàlla mboolem doom ju góor ju ma am mbaa doom ju jigéen ka ca njëkk a juddu tabaarakallahu ba ca ka ca ñoom ñépp nanga nga leen barkeelal doom yi sëñ Tuubaa kon ñépp am barke ka ca njëkk juddu ba ka ca mujjee juddu sëñ jigéen la taawloo moo tax mu ne wali barik fil banina wal banaat bi sóoratin awwaluha wal aadiyaat yàlla samay doom yu góor yeeg yu jigéen yépp ci barkeb suuratul Aadiyaat bi mu ne awaluha waxut axiruha ndax xajut ci wëy waaye bu ne awaluha rek def naa ne boo ñaan ne yàlla maa ngi lay ñaan nga barkeel samay doom yu gor yu jigéen ba noppi ne ka ca njëkk day mel ni kon wax nga ñëpp ka ca mujj taxul ñuy wax ba nga ñaanalee ka ca njëkk fekkoon dafa ñëw ñaanal kii mujj ñu naa ah, moom kat ku mujj rek la ñaanal waaye bi mu waxee awaluha rek la ñaanal ñëpp moo tax ma barik yàlla na nga barkelee lii ñaan ma fil banina samay doom yu góor wal banaat atu jigéen yëpp bi sóoratin nga xamee ne wala aadiyaat mooy mooy wala aadiyaat dégg nga awwalaha woy njëkk seen doom ña ca njëkk daal ak ña ca mujj ki njëkk judd ak ki mujjee judd ñoom ñëpp ceeb yàlla nanga leen na def ci ñoom bark te barki boobee suñ borom def na ko ci ay njabootam ñëpp. al aadiyaat tuddee nañ ko ko sun borom dafay gëñ xasamu bil xaylil jaariyati fi sabilillah fas yi nga xamee dañuy daw dégg nga ay jàmbaar war seen kaw di jihaar ci yoonu yàlla. xiina yasaru sawtuha min surhatin xadwiya suñuy xëlu di daw da ngay dégg seen kaddo ak seen tànk yi niñ gaawee te mën a ràmm su ko defee nag ci la yàlla di gëñ loolu mooy wal aadiyaat aadiyaati dappan maa ngi gëñ ci fas yi nga xamee fasi naaru góor yi nga xamee ne suñuy daw da ngay dégg seen kaddo dégg nga ni muy jógee su ko defee nag ñuy dog ñi ñiy dog àll bi di sànni seen tànk yi fal muuriyaati xaddaan maa ngi gën ci fas yooyu nga xam ne ay jàmbaar war seen kaw su ko defee seen tànk yi mel ni safara di ciy génnee ngir gaaw gi ñu gaaw xam nga am na fasi naar góor yoo xam ne boo leen waree daw gi ñuy daw da ngay gis ay étincelle di génn ci seen tànk yi di takk rawatina bu ñuy daw ci barab yu mel ni kekk da ngay gis étincelle ay étincelle di génne seen tànk fal muqiraati sub an maa ngi gën ci fas yi nga xamee ne ay jàmbaar war seen kaw su ko defee di lokk noon di di di lokki noon yi di leen attaqué ci waxtu suba dégg nga fal muqiraatu subaan mooy fal xayli allati tuqiiru wa tubaaqidul adwa da ngay gis léeg-léeg yéeféer ñi kenn ku ne su waree sa fas julit ñi war seen fas ñi dajee di bëttante poussière boobu di jóg mooy fal muqiraatu subaan ñi di ko def nag ci waxtu suba yàlla may gën ci jàmbaar yooyu nga xam ne ñoo war naari góor yooyu di xalak noon yi di leen lokki fa asar bi bihi naqaan su ko defee nag gis pënd bi jóg ca kaw jéqeeku jàmbaar yaa ngi war ci kaw naari góor yooyu su ko defee nag nga gis nag seeni gawar yi dégg nga ña nga nekk ci digg xare ba jàmmarloog seeni noon di leen faagaagal yàlla ne inna linsaana li may gëñ daal inna linsaana li rabbi lakanoodun ca dëgg-dëgg daal doomu adama wii daakoon boromam la doomu aadama daal wii kon borom la doomu aadama daal wii daakoon borom la te wa innu ala zalika la sahiidun doomu aadama kat la sahiidun mooy la muqirun ala juhudi jamono jëmi weddi te mu wóor ko na ko dafa weddi dafay gën a nuuru rek ci weddi du mën a mukk bàyyi weddi moom daal buy weddi yàlla dafay weddi rek nuuru ci weddi kon saar wi daal li muy fi rek mooy wal adiyaat mooy yàlla gën ci fas yi nga xamee ne jàmbaar daf leen di war su ko defee nag ñi jihaar ci yoonu yàlla kon yàlla bàyyiwu dara tagg na ba tagg seen fas ya kon fas yooyee dañuy wax ne sax borom xam-xam yi nee nañu fuurit may génnee seen gémmiñ ya ku ko peesoon ak wólu gën a mag ci àdduna ci diggante asamaan ak suuf fuur itam fas yooyu rek waxuma fas yi de ak ña waroon seen kaw fuur itam fas yooyu rek wat waliyu ba kon loolu day tegtal ne seen yiw kenn xam nuñ toll seen daraja ñoom ñi nga xam ne ñoo doon xeex ci yoonu yàlla bañ faat leen mbaa wa minhum man yantasiru wa ma baddalu tabdilan benn faatuñ leen waaye soppiwuñu ba yàlla jël seen bakkan wajal yàlla na nga def nafsiya sama bakan saa tafaw sin muy borom texe taa iha di aji topp bil istiqaamati ànd ko jub kocc bi àqil xaariyan ci barkeeb xaariyan yàlla na nga def sama bakkan mu nekk bakkan bu texe bakkan boo xam ne daf lay topp waaye topp gi yëpp da koy da koy teg ci njub nit ki dana wax maa ngi topp yàlla te yàlla ci anamu njub waaye sëñ bi na sama bakkan nekk bakkan bu texe mooy bakkan boobu yàlla waxu ne xad aflaha man sakaha koo xam ne dafa laabal lépp luy xeeti bakkaar dégg nga moo xam bakkaar yu ndaw yi ak yu mag yi seetal ko ci bakkanam bam seet wicci kooku mooy borom bakkan boobu waaye waxat xaab man da dasaa am na koo xam ne dafa tilimal bakkanam ci kar bakkan boobu mooy bakkan boo xam ne dafa tilim bakkan bu set nag mooy bi ma wax léegi mooy koo xamee ne bakkaar yu ndaw yeeg yu mag yëpp da ko setal ci bakkanam du ko def du ko jublu kooku nag mën naa dem ba ay nooyam sax yàlla da koy bind mu nekk payoor moo tax man wajaxal yàlla nga def nafsee sama bakkan saa tafaw sin muy borom texe ta iha di aji topp la bil istiqaamatin ci njub la lay toppee na ko def na biaqil qaariya ci barkeb suratul qaariya tuddee nañ ko suratul qaari'a ngir fëgg fëggu gi nga xamee ne xooli nit ñëpp moom la ñuy fëggu yowmal qiyaam bu yàlla dekkalee jàmm ñi tiitaange gi moo koy waral ba kenn ku nekk sa xol dafay tiit fëggu moo tax ñu tuddee ko alqaari'a alqaari'a mooy alqiyaamatu allati taqra'u alquluba bi ahwaliha xol yëpp dañuy tiit fëggu ngir tiitaange bis penc bi moo tax mu ne ko mal qaari'a bi yàlla gëñee ci alqaari'a dana ko mal qaari'a ana lan lan mooy mbiri bis mi nga xamee ne dana fëgg xoli nit ñëpp ngir tiitaange moo ko waral wa ma adraka mal qaari'a yow yonent bi ana lan moo la xamal lii nga xamee ne mooy bis penc nga xamee ne su teewee xoli nit ñëpp dañuy tiit ba ila aqri surati moo tax mu ne ko nag yàlla na nga def sama bakkan mu nekk bakkan bu texe bakkan boo xam ne foo ko fekk rek ci njub rek ci lay sax may ma ko ci barkeb qaari'a mi nga xam ne li muy tekki li muy firi rek mooy bu yowmal qiyaamee daal nit ñëpp seen xol yi dafay fëggu tiit loo koy waral nag mooy tiitaangeeg bis penc ba moo xam jullit ñaak ñu dul lool euh, loolu yëpp mën na leen faa dal waxab yàlla na nga may lii ñaan ma bi sóoru takaasuri ci barkeb sóoru takaasuri kasarata xayraatin bëri yiw yi bilaa tafaaquru ci lu genn wante yàlla may ma ci barkeb sóoru takaasuri su ko defee nag yiw yi bëri ci man waaye yiw yi li ñuy bëri bëri ci man bu ma ndamu mukk wane na am naa dara ci yiw ndax adduna kat loo fi jëlee lu mu bëri góorgóorlu rek moo ci war a tege waaye warul puukuru dégg nga puukuru moom rek mi ngi war a amee ëllëg yowmal qiyaam bu ñëpp taxawee fa kanam yàlla waaye adduna moom kërug jëf la su ko defee kërug fay ga foofu la ñuy tiitaroo loolu nag mun naa sabab boobu nag nga xam ne yàlla dafay wax ne am na ci nit ñi nit ñi daal dañuy nekk ci adduna rek di ëppalante alal ak doom di ci tiitaru da ngay gis koo xam ne li muy tiitaroo ci moromam mooy maa la ëpp doom yu jigéen ak yu góor am koo xam ne alalam lay tiitaroo ci kaw ay doomi baayam wala ci kaw ay magam wala ci kaw ay maamam loolu rek moo tax suñu borom ne alhaakumu takaasur nit ñi daal yéen nit ñi seen yitte daal seen soxla mooy di ndam wante ci wàllu alal ak doom ba bañ a topp yàlla alhaakumu mooy saqalukum xan taati lay wal awlaadi wal mataahi maa la ëpp bagage maa la ëpp doom maa la ëpp matériel maa la ëpp alal nit ñi lool rek ci la ñuy nekk ba yàlla ne xataa surtumul maqaabira ba ngeen dee nag ñu dugal leen ci bàmmeel yi kanaa ngeen defal yàlla dara waaye di ëpplante rek maa la ëpp alal maa la ëpp matériel maa la ëpp oto loolu rek ci ngeen di nekk bañ dugal leen ci bàmmeel bi leneen kay ngeen war a xëccoo mooy jëf ju baax bu nit ñëpp tuddee guddi ngeen di naafale di jokk mbokk am ak nit ñëpp jàmm seq ñoom jàmm ña ngeen tene ngeen ci wàllu wërsëg ngeen yëkkati seen i wërsëg di leen jox te kenn bu mu ko xam ku dul yéen ak yàlla waaye nekk fii naa maa la ëpp lii maa la loolu moo benn sens su ko defee nag mun naa sabab boobu moo tax sëriñ bi yow suñu borom waxaat yàlla may lii bi suuratu takaasuri ci barke suuratu takaasuri kasrata xayraatin bëri yiw yi bilaa tafaaxuru ci lu genn aji ndam wante yiw yi daal waxtu nay gën di ñëw ci man di bëri rek te itam bu ma tiituroo kenn ndax yiw moom lu mu bëri bëri du doy tabaarakallahu ndax fa ñu jëm moo ko laaj bar sàq moo ko laaj waaye itam fa ñu jëm te yegg guñ fekk kenn ku nekk bi nga ñëwee ci na da ngaa tukki si rek tukki bu ne nag da ngay wut yóbbal kon nag kenn ku nekk war naa fexe wut yóbbal boo xam ne bu duuf la ndax bu ko ëllëgee bul ñee kenn lu dul dañ lay ñee waaye nag yow tabaarakallahu boo liggéey sa xel dal sa xelaat dal sa lépp tranquille loolu nag la loo ko mën a may mooy jëf yu baax ya nga doon bëreel te bañ koo ndam wante yal na yàlla musul ci xeeti ndamu moo xam léeg-léeg gis koo xam ci askan ci lay ndamu koo xam ne ci alal koo xam ne ci doom koo xam ne ci ay warwaay nit ñi lenn lu nekk kenn ku nekk ak li ngay ndamoo sa morom rek te loolu yëpp xamuñ ne bi ñuy ñëw indaale wuñ ko te bu ñuy dem dañ ko fi bàyyi kon loolu jar ndamu li mat a ndamoo ci dëgg-dëgg mooy sax ci jëf ju baax sax ci ak njub sax ci sellal sax ci njub sax ci dëgg loolu rek mooy li mat a ndamoo mbokk yi moom rek mat a ndamoo